mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, réew mi FM euh, dal leen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo nag dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee dañuy delloo njukkal euh, kilifa gu mag gu fi bàyyeekoo ay bés bi ñu génn mu di maître Alioune Badara Cissé moom nag moo nekkoon médiateur de la République ci Sénégal nekkoon ministre des affaires étrangères waaye nekkoon citoyen bu engagé loolu li ko màndargaal mooy bi mu génnee àdduna seede yi la jugee mujje comme ci majorité te lépp benn la woon askan wi itam ku ci nekk indi ay seede yu rafet ci maître Alioune Badara Cissé benn ci seede yooyu nag tey moom la ñu dalal mu di Youssou Diallo nekk njiital euh, club Sénégal émergent nekk doomi Ndar comme maître Alioune Badara Cissé mais yàgg ci wàllu politique tax tey ñu euh, bëgg sekk ak yow waxtaan ngir delloo njukkal euh, maître Alioune Badara Cissé Youssou Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci dem ak Tay voilà maa ngi leen di nuyu di leen ci initiative bu baax bi ngeen def nga xam ni pratiquement dafay da daanaka boobu seetee ci l'islam daanaka sunna la parce que suñu borom wax na yonent sallallahu que euh, bu ngeen xamee ci moom lu baax te muy dëgg et na ngeen ko wax parce que bu ngeen ko waxee malaayka yërmande yi dañ koy yóbbu et loolu dana bokk ci li koy plaidel ci ci biir bàmmeel ak ëllëg. Mhm. kon nag eh, maa ngi lay gërëm di la sant di la sargal ci initiative bu baax mi nga xam ne def nga ko ci kilifa gu mag. Mhm. comme ni nga ko waxee di Alioune Badara Cissé yaa Mhm. amin alors euh, li tax nag yow ñu gën laa tànn mooy sa euh, seede bi nga indi ci moom da nga caa wane ni amoon ngeen relation yoo xam ne jéggi na politique ndax ne nga imaam la la daan woowee te itam euh, mag la woon ci yow jamono ju nekk ba ngeen di nekk xale sax ca ndar daan na la dalal këram ca Fann résidence ngeen doon sekk lu baree bari bari ndax tey kon yow mën nga ñëw wax kan mooy Alioune Badara Cissé xëy na ngir génération yi ñëw sax te xamuñu ko bu ñu la dégloo mën a xam kan moo doonoon jëmm jooju. waaw jërëjëf effectivement suma mag la mais mag ma ko bindee te mag tuuti rek parce que daanaka ay weer la ñu magante parce que mi ngi judd en février mille neuf cent cinquante huit ma judd en mars mille neuf cent cinquante huit hmm. donc ñuy ñaari doomu ndar moom yàlla def euh, muy ci wàllu askanam surtout ci wàllu askanam muy waa waa Guet xam nga ndar boo ko waxee daanaka cosaan la mooy gerte ndar. Mhm. parce que nappkat yi daanaka ñoo ko jiitu ñëpp. boole ci aussi quartier bi ma dëkk muy le quartier nord ci île bi nekk ci wetu la def naa waa kër papaam. ko mhm. dëkkoon nekk ci vers koñu salle des fêtes. Euh, ñu daan daje ci wàllu sport parce que ku bëggoon sport la. Mhm. surtout booba ci ci nawetaan yi bokkoon benn équipe. te eh, yàlla def nag eh, eh, ñu xamante ci loolu mu nekk nit ku baax ku woyof te am yëngatu am pas-pas ci wàllu sport boobu sax dem na ci ba nekk président Saint-Louis basket club defe naa kooku ñu fàttaliku nañ ko te mhm. Saint-Louis basket club li ko defar daanaka moom Alioune ku ci ku ci ku ci ràññeeku ci loolu aussi mu. après ci bi mu Dakar nag ci la ñu xaw a kii parce que man moom lycée daanaka fii la ko defee à Dakar man lycée maa ngi ko defee ci Ndar ci ci lycée Faidherbe bu xam ne léegi mooy Omar Foutiyou Tall mm-hmm. mais loolu taxul suñu diggante dàkk parce que après fekkente nañu ci wàllu politique bi mm-hmm. et particulièrement ci biir euh, parti démocratique sénégalais muy PDS mm-hmm. et yàlla defoon nag mu ràññee ko ci lool comme ni ma ko bindee nee naa moom da nga bëgg wala ko bëgg mhm. waaye nag euh, daal du ci kenn ci ci ci ci loo xam ni doo doo ci am yëg-yëg hmm. maanaam mënuma wax sax expression bi sax en français waaye daal mhm. euh, moom daal daanaka sax kenn mhm. euh, yàlla dogal nag mu def loolu ci moom te aussi beneen mandarga bi muy jullit àqan parce dañ ne jullit bu faatoo ñaari mbir la ñu war a euh, wax ci moom bu njëkk bi mooy ndax jullit la woon man de bokk ci ñuy ni jullit àqan la woon daan na sàmm waxtu juróom daan na sàmm diineem aussi ci réew mi bokkoon ci ñi gën a ci wàllu tarixa muridiya parce que daanaka daayira Hizbut Tarqiyyah bi sax def naa bu sosul mm-hmm. mais bokk ci ñi jëkk ci jëkk jàpp jëkk ci dugg et ba ràññeeku lool. Mhm. beneen bi mooy nit bu faatoo dañuy laaj ndax nit ku baax la. Mhm. nit ku baax nag mooy jikko yi mu làmbool. Mhm. et naa ni kooku moom e, wër na réew mi. comme ni nga ko waxee ñi bokk ci wàllu politique bi. ak ñi ci wàllu diine ji ak ñi nga xam sax ay jàmbur lañu. E, ñëpp maase nañ ci moom. E, nangu na na rafet jikkoom ak woyafam. kon nag ñu am yaakaar ci moom ci yërmande yàlla. ak ca mboolem way daw a nga xam ne jot na leen fekki ak ña fekki. ba ba ilaa yow na xiyaamati beneen bi mooy comme ni ma binde ci sama article bi maanaam dafa nekkoon nitu kese xam nga dama ni euh, euh, dafa nekk euh, un homme au premier degré. Mhm. waaw boo ko waxee ci tubaab boo koy firi ci wolof bu set un homme premier degré mooy nitu kese nitu neen mhm. nga xam ni amul arrière pensée maanaam du la wax lii di xalaat leneen mais aussi du digéeg yow et di la doxe ginnaaw li mu wax moo nekk ci moom li mu jëf moo nekk ci moom kon nag euh, moom sax d'ailleurs wax naa ko ni daanaka dafa mel na koo xam ne rek dafa joxe ci politique parce que xam nga am na jikko yoo xam ne boo ko làmboo boo neenee et mm-hmm. eh, mën réussir ci politique wala nga nekk ci dana xaw jafe voilà boo xam li nga war a wax da nga wax li nga xalaat koy wax. Mm-hmm. et aussi doo nëbb nëbbal doo làq-làqal. et bu lu nga xam ni lu baax la nga ni baax na bu dee safaan ba nga ni lii safaan la. te bokk ci kuréel te parce que politique boo ci bokkee ak même état ñoo xaw yem. Mm-hmm. dafa am lu ñuy wax kilifteef. Mm-hmm. te kilifteef nag léeg dafay tax nit ki. te dana am sax léeg-léeg loo xam ne ci aqulaayam taala xam na ni lii la waaye mu bañ ca wax wala sax xëy na mu waxee ci noo xam ni xëy na dana xaw indi sutura mm-hmm. kon nag euh, loolu li ko li ko moo tax sa deer melo meloon noonu ci wàllu politique ak ci wàllu nguur euh, di ci faral di am ay tolof tolof parce que ni mu bindoo euh, kilifteef moo gën a taxaw que maanaam lu la neex wax wala lu la neex def mm-hmm. voilà voilà donc daal yooyu ay ay seede beneen bi moom mooy daal yomb la woon nit ku nit ku woyof la woon. Hmm. nit koo xam ne aussi mën na dimbali doomu aadama. Euh, te te te yëgoon na ko mais aussi beneen bi mooy borom xam-xam bu allah. Hmm. ku yàlla dimbale woon ci wàllu woowu donc daanaka amoon na li ñuy wax éloquence maanaam amoon li ñuy wax bayre waaw parce que bu waxee wala mu wala mu jëf wala mu même na muy solo nit ku macha allah nit ku élégant. Hmm. ak ak yooyu donc euh, daal soppal woon na daal. a mhm. voilà donc euh, boole ci nag macha allah yàlla defoon naka mooy xam-xam. Mhm. et aussi amoon na amoon na na fayda daal. Mhm. donc daal euh, macha allah daal joxoon na ko ay mandarga yoo xam ne mandarga yu ci doomu aadama. Mhm. ci dundam aussi euh, wax nañu ni ku fonkoon ay relation la yow wax nga ko ñu bari ñeneen it wax nañu ko ba ci opposition bi am na ci ñoo xam ne daanaka euh, bala muy génn àdduna sax am na ci ñu mu dem seeti leen donte bokkatuñu camp politique bi ñu nekk loolu ndax mën nga ñu cee wax dara. waaw noonu moom kañ nee naa la amuloon xarm daanaka euh, xarma yàlla kenn bu la xamee rek benn yoon xam na la. voilà donc day jékki-jékki rek ci jël téléphone am woo la wax ak yow et cetera bon moom bi boobu may nettali parce que moom laa ci gën a jàpp mooy ci euh, euh, keroog bi nga xam ne ko dindee ci ministère affaires étrangères mu toog ay jamono jékki-jékki bés rek effectivement boo téléphoné ma daal daal Youssou dama bëggoon nga ñëw ñu waxtaan parce que daal euh, am na ci yoo xam ne xam naa ne xëy na mën nga ma ci dimbale ci wàllu xalaat et puis wax ci réew leneen bi mooy aussi suma imaam nga yàlla def na euh, boo ñëwee aussi nga sànni ma ñaan parce que soxla naa ko invité naa la añ bés sàngam ay këram ndeysaan boobu am nañu fànn résidence jógee ko sax ci këram bi ki ñu ko joxoon logement de fonction bi voilà yendu keroog macha allah ñu waxtaan waxtaan bu am solo lañ ci këraloon yëpp defe naa ni dama ko waxee woon te mu nanguloon ma ko noonu la ko defee surtout ak président de la république nga xam ni daal digaloon naa ko moytul dem sos beneen kuréel wala parti wala yu mel noonu moytul wax wax du ñaaw wala kàddu gu ñagas ci Macky Sall parce que ni ngeen demee moo tax te am na diggante yoo xam ni politique war a ko yàq. Hmm. defe naa loolu moom tamit jëfe na ko mais aussi président Macky Sall jëfe na ko parce que mujj gi mujj nañu delluwaat euh, mosuñ sax taxali ko waaye nag euh, bi ko président joxe médiature nga xam ne euh, kuréel yi gën a ràññeeku ci réew mi la nga xam ne buñ la ko falee juróom-ñaari at <laughs> boo fa nekkee même moom président de la république bala ko bala ko na woon dina ko mën dindi xam nga kooku confiance la bu rëy mhm. mais aussi esprit dépassement la ci diggante président Macky Sall ak moom ak euh, ak woyof ci seen ci seen ci seen diggante mhm. kon nag nit ku nit ku ku fonkoon kii la bu la xamee benn yoon xam na la mhm. bu ngeen bokkatul sax xalaat wala bokkatuleen laaj rek lu tee fa mu la gis dana kii def naa maa ngi lire euh, ci témoignage bi Ablaye Wade wax di euh, waxe mon mon xam nga nit boo demee ba ne sama doom la euh, fankat ak sore na te ñëpp xamoon nañ seen diggante ñoom ñaar dafa daan tooñ góor gi ak yooyu yëpp léeg-léeg mu ñëw jaar fii moom mu jaar fale mais teewul macha allah ñu ñu Ablaye Wade doomoo woon leen bëgg leen moom Alioune Badara aussi ca la bokkoon loolu dàqul nga xamee ni et dem na sos affaire ak président Macky Sall loolu loolu waaw ndax gis nañu anniversaire wu président Abdoulaye Wade bu jot daanaka dafay bind ci moom lu daw yaram lu mucc ayib loo xam ni boo xamul woon président Wade sax danga koy bëgg ndax kàddu yi Alioune Badara Cissé doon wax ci moom euh, donc loolu mun nañu ko ci yokk comme firnde. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que loolu loolu loolu de la pour classe politique bi. Mm. ak euh, même nit ñëpp parce que xam nga nité dafa laaj. Euh, nga xam li nga xam ni moo la booleeg nit ki. Mhm. Eh, mën ngeen bañ bokk ay bëgg-bëgg léeg-léeg mën ngeen bañ bokk ay intérêt mhm. mën ngeen sax bañ bokk fi ngeen jëm waaye nag léeg-léeg diggante nit ak morom ma diggante jullit ak moromam dafa am mën ngeen mën ngeen tàqalikoo mhm. ko comprendre woon ci la bokk voilà xamoon na ni ay nit mën nañu ànd léeg-léeg safaanoo ba tàqalikoo sax waaye nag bu ñu dogoo hmm. ah loolu nag moom euh, macha allah ku ko doon sàmm la hmm. maanaam noon noonu waaye nag da ngay am léeg-léeg mën nga am ay adversaire du moment mën nga am li ñuy wax ay ay wujji hmm. waaw waaw boo euh, ko am na lu ngeen bokk am na lu leen boole euh, boole boobu nag joŋante dana ca am waaye nag kenn du ci bëgg xëy na bu fekkee nit a ngeen kër ga tas wala kër ga mujj foo xam ni daal du baax. Mhm. parce boobaa du baax ci kenn. dëgg la. moom nag yàlla dimbale na ci ci woowu. Mhm. te kooku di ko di rafet ci la bokk. Mhm. alors yow lan nga jàngat ak lan nga jàpp ne classe politique bi moom la ñu war a jàngat ci dundu maître Alioune Badara gi mais ci génnu àddunaam ak li ci topp euh, ci ay seede yu rafet ci taxawaay ci leneen ak leneen loo xam ni daal euh, fës na lool ci dem gi nga xam ni dem na ko. Hmm. waaw parce que eh, xam nga comme que léegi yàlla suñu borom eh, yónneetul ay yonent yonent yi jeex na ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, day wax ak jaam ay ay ay ay li ñuy wax ay signes waaw signes yooyu nag jékki-jékki ay kilifa yu mag di tegloo di dem am na lu yàlla di wax ak jaam te demam demu Babacar Touré demu Mansour Kama demu yenn xalif yu mag yi nga xam ne daanaka fan yale tegle nañu defe naa ñett ba ñeenti xalif généraux yu dem barki dem xalif Baye Fall yi moo dem ak yeneen nit ñu ràññeeku ay kilifa ci réew mi eh, ba ci ba ci ñeneen ak ñeneen eh, yàlla dafay jaam ñi daal dellu si parce que àddina si eh, xëy na kii na waaye nag ah, amul amul amul solo te te lépp ci ci ci fii lay mujjee nit nekkoon na nekkatul eh, léegi yërmande yàlla la ñuy sàkku ci moom te foofa nag yemale yem yem bi nit ñi yem yàlla daf koy daf koy kon nag war na eh, pousser nit ñi ñu gën def esprit de dépassement gën xam ne réew mi moo leen boole xëy na bokkuñu ay xalaatin bokkuñu ay doxalin waaye nag ñoo li ñu li leen boole mi leen bool dafa rëy mooy askan wi te loolu nag war nañ ci góorgóorlu ba nga xam ne daal euh, dinañ jéem a jox jàmm dinañ jéem a jox salaam dinañ jéem a surtout di parce que wutin bu rafet day tax bu bu la yàlla joxe teewin bi day yomb nee nañu yàlla bu la bu la bu la bu la yàlla bu lay téeñ nag bu wala yenn yenn ba dana dana dana dana woyof aussi la nga cay séentu et xëy na yàlla dana la ko defal yaakaar du tas waaye wutin bu ñaaw ak amin bu ñaaw dafay indi ëllëg si biir nga dem sax léeg ba am durus wala na nga doon bu ñaaw et ñay jonganteeg yow di jëfanteeg yow ci jëfin bu ñaaw bi daan def kon nag euh, yooyu aussi ñu war fa ay ensuite jàmm di dox jàmm ak salaam taxul ngeen am jàmm taxul ngeen am seen diggante ngeen di maslaha maslaha waaw ma Alioune Cissé nitu euh, en dehors de nit ku dëggu la woon bu hmm. daan wax li mu xalaat mais macha allah leneen li ko mandargaal mooy dafa daan am solo hmm. waaw maslaha nag mooy di def ay compromis mooy di di di daal di daal li nga xam ne tegale naa ak nit ñi nga jéem a nga mm-hmm. aussi def naa ni euh, mandarga la. et aussi de plus en plus que am aussi la fin d'une époque maanaam daal dafa am euh, lu bees loo xam ne mi ngi ñëw. Mm-hmm. na génération yoo xam ne ñi nga xam ne léegi léegi daanaka àgg nañu ci soixante ans ak yooyu. Mm-hmm. de plus en plus euh, ñeneen ñooy ñëw. mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci diggante xëy na vingt ans jàpp quarante ba cinquante ans mhm. mooy génération nouvelle yi donc euh, euh, mooy ñi nga xam ne ñoo juddu un peu avant l'indépendance ak ñi nga xam ne judd nañ juste après indépendance mhm. donc ba ci année soixante dix yi donc génération boobu léegi presque moo nekk presque euh, moo nekk génération bi nga xam ne mi ngi jeexal mhm. li ñuy wax cycle yeneen eh, génération nag léegi di di ñëw mhm. eh, ñu war leen parce que àddina moom eh, di mooy mooy ci sax tàkk waaye aussi mooy jamono mhm. te jamono nag dafay wëlbatiku mhm. waaw dafay soppeeku donc ñu ngi jëm ci beneen jamono jamono boobu ak aussi dafa am yeneen lu mu laaj waaye nag niñ ko gisee léegi muy dox xaw na tiital nit ñi parce que homme politique yi bu njëkk ba ca def ñu Senghor Lamine Gueye euh, Blaise Diagne euh, Ablaye Wade Cheikh Anta ak ñoom ñëpp Abdou Diouf et ñoom ñëpp ba ci président Macky Sall euh, malgré que contradiction daan am waaye daan nañu rafetal seen diggante et puis daan nañu moytu wax ju ñaaw daan nañu moytu jëfin bu ñaaw daan nañu moytu aussi li wax euh, violence voilà mooy mooy fitna mm-hmm. waaw yooyu nag génération yi yi di nag dafa mel na fitna dafa xaw ànd ak ñoom. et eh, am na ci loo xam ne aussi teggin eh, daanaka mel na ni xaw na xaw na néew tuuti. Hmm. ci seen jëfin. Hmm. te loolu loolu loolu du hmm. kon nag comme que ndegam bakkan mooy jékki-jékki wax suma laaj nag nguur goo xam ne boo ko boo ci faloo eh, léegi suñu constitution daanaka boo ci defee fukki at mënu mënatoo def lu ko bu la yàlla may gudd sutura ba nga mën ko def donc xam nga lu fi Euh, léeg-léeg daf fi amatul moo tax nag rafet rafetal ci wutin bi mhm. ba nga xam ne ëllëg ak si biir boo ko jotee eh, yàlla man la ci defal jàmm ak salaam mën la ci defal sutura et puis defal la ci ndam yaak askan wi mhm. am na solo jërëjëf Youssou Diallo ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, yow yaay président club Sénégal émergent nekk itam PCA bu Sonacos SA amoon nañu mbégte lool dalal ci waxtaan wi ñu jagleloon euh, ay seede ci maître ba Badara Cissé spécial démb ak tey dellu di ñaan yàlla mu woyfal suuf si kawam te doole wàccee yërmande ak ay xéewal ci moom ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw jërëjëf dama lay gërëm soxna Fatou parce que euh, def nga lu rafet comme ni ma waxee ci njëlbéen émission bi parce que nit ku baax moom àddina lépp loo gis ci nettali te nee na nettali rafet na mhm. yéen nag lii ngeen di def moom day saxal nettali mhm. parce que jikko yu rafet ak euh, yiñ ci war a jàngat et loolu mooy li nga xam ne moom mooy moom mooy mhm. te comme li kii di wax rek waa maa bi ñaamatara bi dafa xadis maanaam da leen fàttaliku parce que fàttaliku dana jëriñ yow nag ci ci loolu nga nekk maa ngi la ciy gërëm la ci sant di gërëm réew mi FM yëpp di gërëm surtout seen kilifa Mm. parce que yéen a ci taxawaay ak yoon wu rafet ci defar réew mi teggin boobu ñuy wax euh, boole nit rafetal et euh, taaral. Mm-hmm. loolu defe naa ni yéen yéen ci ngeen nekk parce que gis nañu aussi même ci wàllu média yi tey jii d'ailleurs li lii xam mu ndaw ñi di indi yenn yi yëpp léeg wala rajo euh, des fois tu te demandes ndax ay journaliste nga taxaw. Mm-hmm. seen wala leneen ngay seen. Mm-hmm. voilà maa ngi lay gërëm jërëjëf Diallo ñu ngi lay gërëm yooyu itam jërëjëf. kon euh, mbokk yi ñu wéy ba tey ci CD euh, yi jëm ci maître ba dara Cissé ginnaaw euh, Youssou Diallo njiital club Sénégal émergent ak psa bu Sonacos dañuy taataan CD keneen di Diégui Diop moom bokk ci APR wante nekk doomu Ndar comme maître ba dara Cissé alors Diégui gannaaw bi ñu la nuyoo lan nga ñu mun a wax tey ci maître ba dara Cissé mi nga bokkal Ndar bokkoon ak moom aussi parti. parti euh, au pouvoir di APR. Euh, merci beaucoup ma soeur ma toujours damay kontaan mm-hmm. euh, di wax ak yow di échanger ak Sénégalais yi à travers seen bi di wax Alioune Badara Cissé dama koy m ma koy jaale waa Ndar m koy jaale waa Sénégal yëpp jaale ko nag waa Ndar jaale ko képp ku eh, jaale ko président Macky Sall di wax ak ah, Alioune Badara Cissé di ak lu mu mën a Tini war mën a seede c'était un homme courtois c'était un homme boo xamante ne de mooy mooy incarner la valeur saint-louisienne tey jii Saint-Louis ñàkk na doom maître Alioune Baldé c'est souvenir li ma gaaxate si moom mooy su ma séenee souvenir yëkkati koy daal di wax ma biche comment vas-tu nga xamante ni loo lu sa xol tàng-tàng loo mer mer Alioune Baldé c'est boo ko gisee jàkkaarloo ak moom c'est dingay recevoir sa xel ndax sa sourire ba ndax sa ba ndax dëggu bi ndax ni muy waxee ak nit donc daal moo mën yàlla moo sañ yàlla moom moo ñu moom te moo ñu jël bu ñu neex yàlla yóbbu na Alioune Badara Cissé maa ngi koy jàlli ñu fa mu yàlla na ko gënal fa te dina doon loolu ndax nit ci lu yëngu rek na nekk dëgg ci yow te Alioune Badara Cissé da doon yëngu ci yow te mu nekkoon dëgg ci moom ba at yu wër na képp mën koo seede mm-hmm. kon maa ngi ñaan sëñ xaadimu mi nga xamante ne moom la yaakaar lan nga gën a jàpp ci activité politique ak doxalin woo xam ni am na ko ci mu mu marqué la euh, lu ma gën a marqué mooy au niveau de Saint-Louis boo xamante ne nekk nga politicien ak parti boo mu ci nekk rek bii Alioune man nga bokk Alioune Badara Cissé bokkoon PDS ak ñun donc ñu ñëw APR man ma fekk si ko APR parce que am na habitude doon il est le géniteur de l'APR te ñun ñu war ko mën a nangul ma fekk ka fa donc man li may marqué daal sur le plan politique de Alioune Badara Cissé moom moom moo nekk nit koo xamante mënoo dem ci campagne ku nekk mënoo dem ci meeting ku nekk te fekk du am dara loo xamante ni métti na ci sa génération surtout nag du mois de mars euh, mooy nañu yaxanaay wamatu doon sax par parloo place biñ ko tegoon muy médiateur doxaloon na ko donc son discours boobu nekk discours bu xamante ni marqué woon na. tey lan nga jàpp ne homme politique yi ak euh, askan wi de manière générale war nañu ko jàng ci moom ndax bi mu génnee àdduna li mu am néew na tey euh, personalité publique bu ko am homme politique rawatina. Sénégal yëpp nit ñi amuñu jot am na ci li ñu nekk ku nekk mm. waaye dama bokk benn séminaire boo xamante ni l'école du parti moo ko organisé avec maître Djibril War. ñu mm. tuddee que la promotion ma daal di jóg lépp lu ma amoon ma tekk ci suuf muy jeudi vendredi ak samedi ma dem mm. bokk ci loolu ndax la xam nga lan doon incarné mm. la générosité dans son ensemble contre opposition yi si loolu ay université boo ko gisee yoo mer naa da ngay dal université ci politique boo toogee daf lay déglu âge boo mënti am xeeblu kenn argumenté ñu argumenté loolu moom c'était normal parce que c'était un bon juriste donc si loolu laay woo politiciens yi di woo politiciens yi nañu général nañu yaatu nañu bëggante yàlla wan nañu boppam sous toutes ses formes kon nañu dellu siwaat suñu xel nos anciens sont en train de partir à la nouvelle génération dañu xoolaati suñu suñu bët ñu xam ni fii ñoo ko moom Sénégal ñun ñoo ko moom nañ ko téye ñii dañuy keneen ñëw keneen day téye dem ñi ne éternel kon na rafet na rafet suñu diggante na rafet suñu ñëw natti ñuy doxalante te ku mën dimbali sa moom ku sut su ngoomal sa morom ku ëppale jàppale sa morom ndax dara saxul yi rek a tax ndax mun nga ñu wax ci taxawaay bi mu amoon ci APR Saint-Louis. non pas trop. Hmm. sincèrement APR Saint-Louis ma demee ñëw fekk la avait pris un peu de recul au niveau de l'APR de Saint-Louis waaye dama gis képp kuy ancien képp koo xamante ne da nga bokkoon APR Saint-Louis rek doy na Aliou Badara Cissé loolu mooy taxawaay bi mu amoon ci loolu. Hmm. man moom ci seede lu bëri parce que man li may agsi fekk na moom jël na un peu de recul par rapport à parti parce que fekk na nekk na médiateur de la République. Hmm. d'accord jërëjëf Diegui mm. ci seede yi ñu ngi lay gërëm. maa ngi lay di wax kon ginnaaw Youssou jàlloo ak euh, Diegui Diop euh, dañuy dem déglu beneen seede bu mustafa jaxate moom itam mu sekkoon ak maître Alioune Badara Cissé lu bare bari yëkkati woon seede yu daw yaram aussi ci moom keroog ba mu làkkoo ñu lu Moustapha Diakhaté. Alioune Badara Cissé dama damay jëkk a def li mu gën soxla fi mu toll. mooy ñaanal ko ñaan yàlla subhanahu wa aw làmmiñam mu def ci lay ñaan yàlla yë atte ko ci yërmandeem ñaan yàlla mu xare ko na ñaan yàlla suufu Tuubaa ci kawam man naa lii 1990 boor yooyu laa ko xam bi mu gaañoo addu yu kàddu yu bari jóg na waaye xamal ni rek lu ci waay wax la nga xam nga wax waaye am na loolu cump man na yàlla dafa ma nattu bis kori tabaski dese une semaine ma tudd sax une semaine damaa yendu këram yendu nag laa wax bu ma dem fa jóge ñu yendu añ waxtaane yu bari joxante randiw après tabaski yàlla dogal bi mu jógee tabaski gi mu feebar gisaatuma ko déggatuma ko kon xam ngeen ne lu méttee metti man dal na moom ndax xam naa ne Aliou li wax ci Boubacar gi sañ naa ko wax ci moom amaloon na njariñ Sénégal lool am te kon nag njariñ li lépp Sénégal jotu ci man 1990 laa ko xam am ñetti jàngat yi ma bëgg ñu def ko ci bi mu jàng ba ñibbisi am xam-xam jamono yooyu gënoon na yomb ci moom mu dem parti socialiste parce que boobu bu fa demoon bu nee bonjour ñu ne ko dalal ndax xam-xam dëgg la indaale moom mu bàyyi ko fa ñëw opposition PDS te jamono jooju daanaka moo xaroo yem kon kooku politique ittee it maanaam jëmam iteelu ko beneen jàngat bi mooy bi nga xamee ne président mag Sall nekkoon naa moom di am jafe-jafe ak waa PDS bi muy dem daa dafa daf ko gunge ànd ak moom dem kon kooku it jëmmam iteelu ko maanaam njariñ bopp ndax bu ko njariñ itteelu bu toogoon Abdoulaye Wade dina ko jox ndomba tànk mais même Ismaïla kii Alioune Badara ni mu tànneeb Serigne ñëm tubaa sax aw jàngat da cee nekk ndax sëñ Abdou Khadir mooy buntam ci Serigne Touba xay na bu fekkonte ne bëgg dara jël ak ak ak i ndombo tànk ci jamono yooyu demoon jébbalu ci xalif général mooy parce que bari na politiciens yu koy def jébbalu ci xalif général bi pour di wuti bunt waaye moom daa fekk jëwriñu maanaam ilimaani Tuubaa mu jébbalu ci moom kon kooku dara daroon wut Sëriñ Tuubaa ñetti jàngat yi lu mat a jàng la Alioune Badara Cissé dama wax ne nit man na koo mag waaye gën ko moom lu jafe la kon bi ma waxee loolu ba noppi ma jaale koy do jaale ko jabaram jaale koy xaritam jaale ko président de la jaale ko yoonu murid yépp nag gisal ci njiit njaal ma nag Sëriñ Muntaxa teg ci sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Khadir ak sëriñ Moustapha mi nekkoon sëriñam rafet wax waa Sénégal ne waa kër sëñ Abdou Khadir taxawu nañ Alioune Badara Cissé ni kilifa war a taxaw taalibeem bu faatu ñoom ñëpp ñoo mobilisé wu ñëw jullee ko ba dugal ko ci suuf bàmmeel ñaanal ko kon encore une man de personnellement xam naa ne Sénégal ñàkk na ku mag mag mag mag euh, am na la sànq nag ne Sénégal ñaare dañuy bàyyi ba nit ki faatu ñu door ko rendre hommage c'est bari na léeg-léeg nga digg ñu rendre hommage boo deful nag sax boo boo lii gën mooy nga bañoon a rendre hommage parce que dana ci wax yoo xam ne ñoo xam ne da nga digg seen i wax. Euh, euh, encore une fois may fàttali sama bopp di fàttali ñëpp ñun ñi def politique nañ fàttaliku ne bis bii dal Alioune Badara Cissé ñu dal ñun ñëpp. kon ginnaaw euh, homme politique euh, yi ñu fi dégg ñu jëflante ak maître Alioune Badara Cissé dañuy nag jàngat ni mu doxalee euh, ci wàllu politique ndax ay jafe-jafe jaar na fii waaye taxul dara ñaaw loola nag dañu koy jàngat ak analyse politique bi Abdoulaye Mbow ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax euh, soxna si. am mbégte lool dalal la ci waxtaan wi alors euh, yow en tant que analyste politique doxalinu maître Alioune Badara Cissé euh, ci wàllu politique ci dundam gi boo ko doon jàngat tey lan nga ñuy wax. waaw jërëjëf di am naat mbégte ngeen dalal si seen. plateau boobu di waxtaanee nit koo xam ne nit ko am solo la nit ko am maanaa mhm. nit ko am solo si wàllu politique nit ko am maanaa si wàllu dund dundam mhm. parce que itam boo koy jàngat euh, maître Alioune Badara Cissé si rangum politique bi mhm. da nga naan dafa nekk denrée rare lu tubaab naan denrée rare donc dafa nekk nit koo xam ne bëggoon ñu am ay Alioune Badara Cissé yu bari ci li nga xam ne moo di langue euh, politique u Sénégal ndaxte wax dëgg hmm. ndax wax dëgg hmm. ndax ñeme dëgg ndax nekkul si nit koo xam ne moom fa mu féetee rek dafay tax muy wax safaan wala dafay wax wax wax euh, baat bu ñaaw hmm. woo ilaa li mu faree dafa doxaluñu dëgg du leen wax dëgg bi defe naa ne loolu euh, pour nga gis ko si langue politique u Sénégal mu xam nag si kuje mu xam si pouvoir bi dafa nekk loo xam ne lu raar la donc nit la koo xam ne dañ fa ne war a nekk école pour véritablement la manière de pratiquer la politique au Sénégal euh, lu tax parce que itam boo xoolee Alioune Badara Cissé fa mu nekkoon si parti démocratique sénégalais jamono ju démissionné métier mu démissionné euh, dem bokk ak langue président Macky Sall nekk le le principal géniteur de l' alliance pour la république sinon l'un des principaux géniteurs te taxut saa bu waree wax li nga xam ne mooy jàpp ni dëgg la soxal na askan wi dundinu askan wi defe naa ni amu si par parloo amu si xaar ma yàlla. Mm. nam ko gisee nam ko xalaatee nan la koy waxee donc loolu la ñuy xaar si li nga xam ne moo di véritablement un homme politique. Mm. xam nga dafa am politicien te ñoo ëpp Sénégal les politiques ñoom ñoo gën a néew Sénégal. Mm. ñi nga xam ne dañu xam ne politique c'est laar de gérer la cité l'art de gérer la cité nag si wàllu doxinu koom la waaye tam si wàllu doxinu naka la ñuy dundee suñu biir. si jëflante lu rafet si waxante lu rafet si waxante dëgg si xool dëgg di ko wax te doo ko raay doo ko ragal defe naa ni ak na koy jubale ci wax la te doo gaañ kenn maanaam kàddu yi dafa dëng-dëng goo xam ne dañuy jàpp ni kii de amut wor ma waaye moom de dundam waxinam lépp wor ma la dundam doxalinam lépp dëgg la defe naa ni nag euh, dafa nekk mbir boo xam ne dañ see yàgg barkeelu ñu jàpp ni kon Alioune Badara Cissé dina manqué bu baax si géewu politique parce que itam li ma ko waxee dëgg boo ko waxee dafa neex dégg ci nopp mm-hmm. def mm-hmm. ñu bëri euh, jàppoon nañu ne bi ñu ko wala bi mandaawam jeexee ci médiateur de la République dafa doon nar a dem xàlli yoonu boppam ndax ay bruit maanaam ñàkk déggoo amoon na fi diggante moom ak président Macky Sall ñu wax ko ñu bañ ko wax mu ñu sentiroon ne sax dañ ko xaw a écarté ñu bari jàppoon ne xëy na bu mandaam jeexee ci médiateur de la République dafay nag euh, doon yoon wu ubbeeku ngir moom yaakaaroon nga mu am beneen doxalin bu wuute ak ni mu doxalee jamono yi ñu ko écarté bi ñu ko wàccee ci ministère des affaires étrangères ak yooyu yëpp. waaw gis nga bu ko loolu mais poste bi la foog ñu réduire ko à simple militant wëlbati ko tabbu ko médiateur de la république moo war am droit de réserve waaye def naa moom bokk na si médiateur wala bokk le premier médiateur bi nga xam ne boo defoon micro trottoir daanaka ñëpp koy xam médiateur yu fi jiitu boo ñu ban si si Sénégal leen lu tax parce que itam dafa mës a taxaw si météo askan wi donc moom dafay manqué Sénégal si lii nga xam ne fa la ñu jëm muuti atum deux mille vingt quatre te coow wu rëy war see mën a judd dem si probable troisième président Macky Sall jëm si li nga xam ne moo di salfaañe processus électoral bi jëm si li nga xam ne moo di rëkk-rëkk yi nga xam ne dañ ko noté si fichier bi ak yeneen i yeneen i problème yoo xam ne dafa dafa nekk si langum politique Sénégal donc nit la koo xam ne kon dina manqué bu baax li nga xam ni moo di askanu Sénégal waaye jàppoo nañu ni Alioune Badara Cissé de bu fekkoon ne ministre président Macky Sall donte la ànd naag moom teg na yoon goo xam ne yoon gu safaanoog dëgg la yoon gu safaanoog ak li nga xam ne moom la charte ndeyu réew mi wax di constitution bi defe naa ne su su boobaa nag dina jëp dafa naa ni man kooku dee dina jël yoonu boppam parce que ku nekk si yoonu dëgg di doxal dëgg di wax dëgg defe naa ne doo ànd ak nit wala koo xam ne ni wala groupe yoo xam ne ni defe naa ne dañuy ñëw tëgg dañuy jël tëgg teg ci seen tànk ba pare wan ko ginnaaw donc loolu lépp boo ko jëlee euh, jàngat la boo xam ne bu am solo la si li euh, doxalinu Alioune Badara Cissé ba jàppoon naa ne de si ni man bu fekkee ni dëgg googu gis na ni ñu ngi koy salfaaje amaana mu jëloon yoonu boppam wa ilaa bopp mu àndak ak ñeneen ñoo xam ne jàpp na ñi ngi ci yoonu dëgg ngir ñu mën a jëmmal dëgg parce que itam dëgg rek moo mësalal li nga xam ne moo di doxalinum politique si Sénégal. Mhm. lan nga jàpp pour jeexal ni homme politique yi war nañ ko retenir vraiment comme exemple wala leçon ci maître Alioune Badara Cissé. waaw mais gis nga bu bu mu dëddoo yàlla def li def li li li ko li ko soob hmm. jël ko def naa ni tous les témoignages yu nga dégg ci des témoignages unanimes lépp ñoo bokk jëmukaay def ay témoignages mu ngi si xelam naa ni témoignage boobu benn la kon bokk loolu mooy premier mooy wane ni war na nekk mbir bu rafet fu mu nekk boo nekkee ci làmb politique Sénégal moom mosoo ko dégg si li nga xam ne moo di wàllu ger mm. mosoo ko dégg si li nga xam ne moo di salfaañi alal boo xam ne dañ ko compal muy alalu réew mi ñu dénk ko fa mu war ko mën a gérer donc loolu yëpp boo ko boolee dafa nekk target euh, si li nga xam ne mooy euh, nit ki parce que itam histoire la ñu wax te histoire tey jii nii am na ay homme politique fi jaaroon saa yi bu ñu leen di fàttaliku ñu faneen fàttali fi nga xam ne euh, amoon nañu jëf joo xam ne ñëpp ko ñaawlu woon waxoon nañu wax joo xam ne ñëpp ko ñaawlu def naa ni nag kon boog dafa nekk un miroir d'éducation dans euh, euh, euh, le landerneau politique sénégalais ba nga xam ne képp ki nga xam ne dafay làkk dafa nekk si langum politique bi war na bàyyi xel ni man sama doxalin de war na rafet war na méngoog dëgg war na méngoog li nga xam ne moo di bëgg bëgg askan wi ba nga xam ne suba lu yàlla bu mu fi yàlla jëlee lépp lu ñuy wax si man di ma fàttaliku d'ici vingt ans d'ici trente di d'ici quarante ans dafay nekk mbir boo xam ne mbir bu rafet la am na ay homme politique yoo xam ne saa bu ñu leen tuddee sa xel dina dem si li nga xam ne amaana boo ko waxut sax sa xel dina dem si li nga xam ne lu ñaawoon la donc loolu lépp dañ ko war di éviter hmm. ba nga xam ne euh, lépp képp kuy jàng politique da nga naan man dama war a servir le peuple dama war servir la nation et non se servir parce que la politique également c'est être au service exclusif de la nation et non se servir véritablement par rapport ay strampone par rapport ak ay préban ba nga xam ne yow sa poche rek moo la soxal sa askan dong moo la moo la soxal maanaam sa famille naka ngay enrichiro def naa ne loolu moo war a jeex te Alioune Badara Cissé c'était l'exemple l'exemple parmi d'autres exemples yi nga xam ne wunu leen tudd Sénégal ngir nit buy jàng politique rek war na nekk une école par rapport à la manière de pratiquer la politique. jërëjëf Abdoulaye Mbow ñu ngi lay gërëm. jërëjëf ni ñu ko waxee nag euh, bu weesoo homme politique yi sénégalais yi yu bari itam euh, am na gis-gis bu ñu am ci maître Alioune Badara Cissé bi mu génnee àdduna itam njàngat moomee la ñu defaat ci moom euh, am na ñu ñu ci dekkoon sunu micro Sylvie fay moo taataanoon seen kàddu ñu teewlu leen. bu dee ñenn ñi xamuñu woon ki fi nekkoon médiateur de la république Alioune Badara Cissé génn àdduna sam génn bi ñu génn. jigéen ñi ku ci mel ni Ndiaye Fall ñoom xamoon nañu ko mu jàpp ni daf fi bàyyi ay valeur politique yi nga xam ne dañ ko war a sàmm. moom lu war a la valeur politique boobu dans jamono ji ni politiciens yi mel ba nga xam ne xam nga am na politiciens yi léegi moom ñu doon dem ba gëmatul leen ndax ñàkk valeur man comme valeur boobu moo fi bàyyi nii lu ñu war a conserver la ñun quoi. Mansour kenn ci ay naataangoom bu APR wax li ni mel mu jàpp ni képp kuy yëngu ci politique da nga a roy ci lim fi bàyyi. ne rassembleur la ku gëmoon ay principe politique la donc euh, vraiment bàyyi li fi héritage boo xamante bi ne ñu mën nañ ci mën nañ ci jafandu seede yëpp nekk benn Alioune Badara Cissé nekkoon na nit ku dëggu ñu ëpp ci sénégalais yi ñu dajeel jàpp ni ki fi nekkoon médiateur de la république daf fi bàyyi ay valeur politiques yi nga xam ne yu mat a sàmm la ñu jeexal jotaay bi nag ak kàddu yi uh, ki nuy waxtaanee tey maître Alioune Badara Cissé muy kàddu yu mu yëkkati woon si waat uh, ci as pàcc ci jaar-jaaram uh, surtout bi mu nekkee ndaw ci émission bi mu mujjee def sax ci télévision muy ak waa Télé Futurs média quartier général bu ñu ko dalaloon mu am yu mu xamle ci jaar-jaaram ci ndaw li nga xam ni moom la doonoon kon ñu teewlu maître Alioune Alioune dama nekk sama taawu baay bu góor. Hmm. bi may gane bi may gane àdduna booba moom am na ñeent fukki at ak juróom benn hmm. ki nga xam ni ma topp ci moom te gën a jege te muy jigéen hmm. mage na ma fukki at euh, sama aawo papa ak ñaareelam yar ma ndax ay doomu jigéen lañu ñu amoon mhm. xam naa jàpp nañ ne kii moom démb la fi ñëw am doom bu góor on le prend ñu jële ma le quartier traditionnel des pêcheurs de Guet-Ndar yóbbu ma à Lille mhm. à la rue Blanchot j'y grandi très rigoureusement mhm. góor gi sévère bëgg jàng ak jàngale ma tàmbale école classe de ce yàlla dimbalee ma ci loolu. nga tàmbali la woon. ma tàmbali C2 bi ma duggee école C2 laa tàmbale. yàlla dimbale ma loolu ma bokk classe ñoo xam ni ma gënal ma ñeenti at ba ñetti at ba ñeent mu yaakaar ci man lool itam. soxna yi ma jël di ma yar jàpp ne maa war a gën ci lu am. ndax bugguñu wan ka ma jur te xaw ma ko lenn loo xam ni dana tax kooku rëccu. ñoom yore doomam mm. ñu teg ma fii góor gi nekkoon surveillant principal des travaux publics nekk ci àll bi léeg-léeg ma topp ko ñu tëdd ma cartable fu ma jëm mu yóbbu mm. ma dem ba ci biir dugal ci yu ci bokkul commencé jëfandikoo cigarette Serigne Cheikh Abdoul Ahad moo ma ci génne en 1978 bi ñu demee di ko ziar ma dégg mu am lu mu ci wax ma génn ca ca saasa la ca des mooy bi ñu jógee Ndar en 1971 parce que moom ak Abdoulaye Fofana mi nga xam mooy baayu Karim Fofana ñoo bokkoon di jàng école blanche. c'est mon grand-père d'ailleurs. waaw góor gi retraité man ma war dem prytanée militaire ñu defal ma déjà en sixième gàntal ma. Mm-hmm. moom nag comme militaire la woon itam dans l'âme il est venu pour faire les démarches au niveau du building xaw ma fan boobu j'étais tout petit pour toppatoo loolu foofu la dajeek l'ancien ministre Abdoulaye Fofana mm mais si c'est Babacar mun kaa moi j'ai pris ma retraite des TP mun ko man dañ ma soog a dénk SOADIP société africaine de diffusion et de promotion il faut vraiment nga ñëw jàpp ci liggéey bi et il nous a tous déménagés à Dakar j'étais là l'indépendance pour un jeune Saint-Louisien ma commencé lu ma dugg ci <laughs> et je discutais avec un ami moom la ñun la ñu dàqandoo man la njëkk dàq <laughs> ma on m'a dit au mois de mars jamono ji deuxième semestre deuxième trimestre élèves non repris au lycée point <laughs> voilà moom ñu may ko mu toog ba juin ñu def conseil ne passe en classe supérieure mais dans un autre établissement ma bokk ci ak on était un petit groupe. Mhm. man maa ci gënoon tuuti mais bon ma ne ma ah, comme yow bëggoo jàng. danaa tur bi laa. ah mon corps mhm. yóbbu la nga def mécanique ci garage su Soadib. Mhm. may dem di ñëw di indi añ di yóbbu di ah nga xel moom yàlla ak moom. fekk fa ñoo xam ni itam ils ont peut-être dit euh, c'est papa mooy sunu patron nañ ko ñu intégré ma. naa góor gi tiit gis ni kii kat buñ ko moytul <laughs> alors que mécanique dara nekku ci mais il a peur uh-huh. mu génnewaat ma foofu yóbbu ma temple évangile euh, Albert Lutili bi dend ak kër sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma uh-huh. seq ko ak clinique ñaaw ma nekk foofu fekk fa samay camarades yoo xam ni ba léegi teqali ko wuñu uh-huh. ah, ñoom itam ñu adoptante ñu fa gënoon xarañ xam naa mooy ñi nga xam dañ leen dàqe feneen <laughs> noonu la ñu màggandoo maasandoo ko ba pare foofu après dem lycée d'application de l'école normale supérieure mm-hmm. yàlla dimbali ñu itam depuis lors amul lu ñu def di ko defaat mm-hmm. waaw la ñu delluwaat ca nañu nekkee woon xaleel xam ni yoon wi waruñu ko woon jóge mm-hmm. yàlla dimbali ñu ñu dellu siwaat ci loolu ba ba li am tey am tey rek macha allah ñu sant bu baax quand je suis rentré je vous ai dit en 85, je suis allé m'inscrire à l'université, j'ai fait le barreau, je me suis marié, en 89, j'ai fini mon stage en Et en décembre, je suis au Sénégal à demande du président Abdoulaye Wade suite à un entretien que j'ai en 82. Mhm. des voisins en quand ils étaient à Grenoble ñoo ma jox cadeau ma indil noonu la ñu xamante depuis lors vraiment on ne s'est jamais quitté même au plus fort de la guerre au plus fort de la guerre à chaque fois qu'il nous prenait là à l'étau à la gorge j'arrivais à lui faire lâcher prise sur des questions très difficiles sur lesquelles yoo xam ne bu insister woon kon ñun dem nañu la bu yàgg ànd ak suñu kersaak suñu lépp xawee ko mais saa yu ma débrouillé ba ñëw wax ak moom dana gudd nag wax ji du yomb kurpeñ saa saaga yeeg yëpp dina ci dem <laughs> waaye balaa guddi gi di xaaj dana ñu may la ko ñaan mm-hmm. c'est un grand monsieur mm-hmm. je voudrais vraiment mm-hmm. le saluer et l'honorer un jour je vous ferai d'autres euh, révélations de ce que j'ai eu à faire pour aller le rencontrer c'est un monsieur que j'aime profondément Mm-hmm. yàlla na suñu borom gën ko bàyyi ak ñun bàyyi kook sagoom ak wér yaram donc quand je suis arrivé mm-hmm. en 2000 a toujours pensé que moi j'étais un agronome il a toujours voulu me confier le ministère de l'agriculture alors on à deux ou trois jours de la Tabaski mm-hmm. j'étais sous le pont du côté du stade Léopold Sédar Senghor avec sandales avec jeans avec chemise aux manches retroussées et bretelles bien entendu parce que j'ai une formation anglo-saxonne c'est pas du Ablaye Wade oui voilà c'est ça et puis j'avais un gros ventre donc j'avais tout ce qu'il fallait pour tenir euh, pour tenir mes bretelles je reçois un coup de fil auparavant j'avais discuté avec Ablaye Wade de l'agriculture il a toujours voulu de ça je suis venu dans la salle d'attente où je trouvais Macky Sall, nous avons été consultés, enfin, il a été consulté en même temps que moi j'avais été convoqué, et les termes doivent être précis, mmh. dans la salle. Il était tout beau, avec un boubou comme ça. Donc, il était bizarre. Il m'a paru, il, je lui ai paru bizarre par mon accoutrement. <laughs> et c'est ça qui avait plus émerveillé les journalistes. On voit quelqu'un qui arrive, euh, ventre ballant, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui. Et puis j'avais un petit sac, les euh, sacs des jeunes là, il y a eu beaucoup Sac à dos. <laughs> J'ai eu un entretien avec le Premier ministre, Mama Diorbo, et je suis sorti. Alors, vous êtes, vous êtes qui Je dis, mais moi, je m'appelle Aline Badara Cissé, comme d'habitude, je ne suis qu'avocat. Il voulait en savoir plus, mais il n'y a pas un seul journaliste que je connaissais, et je n'avais pas envie de m'exprimer. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Je suis parti, quelques années après, je suis devenu euh, conseil spécial du Premier ministre. Deux, trois ans plus tard, mm -hmm. je suis devenu secrétaire général du gouvernement, mm -hmm. avec mhm. rang de mini-siégeant au conseil des ministres. Mm -hmm. Plus rien à envier à qui que ce soit. Ah, pas besoin de faire du cinéma. Parce que quand Wad me demandait de me rapprocher du Sénégal, j'intervenais au profit de Ablaï Faye, qui avait été révoqué mhm. pour mettre Abdou Fall en selle. Mhm. Vous comprenez Bien sûr. Ablaï Faye était malade. Il était à Marseille. Moi, j'étais à Minneapolis, aux États-Unis. J'ai appelé Ward pour dire que voilà, je ne suis pas d'accord, etc. Il faut protéger les anciens. Abdou Fall, c'est mon là. Mais moi, quand ça doit être juste, ça doit être juste, je le dis. Mm -hmm. Il m'a dit, écoute, tu, tu, tu fatigues ta carrière. J'ai dit non, je finis mon doctorat au mois de mai, je rentrerai après. Mais moi, je vais au Sénégal. Pareil, dans mon plan de carrière, il faut que je finisse mon doctorat en droit. Et c'est ce que je fais. Voilà. Mon épouse et mes enfants m'ont précédé. Et moi, après, je les ai rejoints. C'est aussi mmh. simple que ça. Mmh. Depuis lors, je mets mes bretelles. Que je sois dans le gouvernement ou pas, comme j'ai dit un peu plus tôt, cela ne me fait ni chaud ni froid. Ouais. Je suis bien dans ma peau. kon mbokk yi li lañ leen indiloon ci seen émission démb ak tay jagleeloon ko maître Alioune Badara Cissé mi fi bàyyeekoo am na ayubés tey mu nekkoon médiateur de la République nekkoon ministre des affaires étrangères maître ba dara Cissé itam nekkoon ku amoon taxawaay bu ràññeeku euh, waral seede yi ngeen fi dégg yëpp bu weesoo homme politique yi askan wi itam euh, woowee gis-gis la ñu amoon ci moom euh, niki noonu waa société civile bi xëy na mënuñu woon a jël seede yëpp waaye nag yi ñu fi jot dégg rek wane na ni moom nit ki macha allah njort mënees na rafet ci moom waaye itam dund na dund gu ñëpp rafetlu di ñaan yàlla dolli yërmande ci moom jéggal ko te xare ko àjjana dellu di ko jaale njabootam di ko jaale Sénégal yëpp démb ak tey bii nag mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube Fatou Thiam Ngom moo ne woon ci kàddu gi feggoog jaaw jàlloo ci jàppandal gi ñu yendoog jàmm di daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen